moo ñëw pour soutenir ñoo lànk si combat bi ñuy mëne pour Guy Marius Sagna génn si kaso bi moo tax ma ñëw pour ñu xam nañ ne Guy Marius place du kaso et puis ni nga tey tegul si yoon voilà. ana Khalifa moom ñëwul tey wala. Khalifa nekku fii dafa voyagé. waaw moo tax ñëwul mais ñun bu ñu ñëwee xalifaa ngi man xalifa 100 pour cent la. jërëjëf mais aussi ma bëggoon laa laaj en tant que homme politique ci coom troisième mandat bu ñu yëkki temps yi loo ko xalaat. yooyu ay farce la xam nga Cour des comptes daa génne benn rapport am ñu épinglé si état bi ñu ànd ak ñu war leen a topp gars yi génne lii pour dem a nëbbu loolu mais nag gars yi desuwaat si rapport Cour des comptes bi ak li mu génne ak li mu war a def si Cour des comptes la lu mu am solo. mais troisième mandat ay farce la kooku jarul ñu sonn dañ bàyyi ba waxtu bi jot ba mu bëgg ko def. jërëjëf muy euh, Madiop euh, Diop maire maire Grand Yoff aussi muy ndaw ànd ak beneen ndaw xalifa Sall ñu xam ko ci euh, bass <laughs> bassiru bassiru bassiru Basirou yow tamit nga ñëw ci coordinateur national des jeune khalifistes bu ma juumul yow tamit nga ñëw taxaw ci manifestation ñoo lànk bi lu waral tànk yooyu. waaw mais c'est tout à fait normal parce que nous sommes partie prenante de ñoo lànk bokk ci xeex bi te li ñoo lànk di xeex c'est le combat de tous les sénégalais mooy d'abord ñu wàññi courant bi nga xam ne dañ ko yokk bëgg a sonal sénégalais yi mais di accentuer surtout pour la libération de Guy Marius parce que nag il n'a plus sa place en prison aujourd'hui nañ ko neuf personnes huit libéré nañ ko acharnement bi nga xam ne moom la pouvoir bi di def ci Guy Marius Sagna mais il faut que cela cesse et que chaque sénégalais puisse comprendre que Guy Marius xeexalul boppam mais sénégalais la doon xeexal que ñëpp def ko seen combat parce que nag euh, trop c'est waaw beneen bu ma la bëgg a laaj mooy coowum troisième mandat bu tàmbaliwaat noo leen ko jàngatee yéen. waaw dama jàpp ne ay ay caaxaan la rek ay caaxaan la Macky Sall xam na ni lu ab liggéeyul ci Sénégal lu fi Abdoulaye liggéeyul taxawu fi lu fi Abdoulaye taxawul donc li ñu bañal Abdoulaye Wade mënuñu ko nangul ce com ce débat pour man ça doit être clos Macky a fait deux mandats il faut s'inscrire dans l'avenir avenir mooy lan xool d'autres personne qui pourront le succéder demain.